asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, noo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddali sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla ko fi yàlla yàggal te dolli ak wéram bokk yi tey jii ñoo ngi am mbégte di sant yàlla bu baax ci woote bi nga xam ne déggoon ngeen fan yii Serigne Habibou mom Cheikh Mahmadul Fadal woote woon ko ak Serigne Sidi mu waaye àndoon ak sëriñ Amsatu mu Cheikh Abdou Lahad ak eh, sëriñ eh, Fallou Bousso mu sëñ Ousmane Bousso ak sëñ Fallou Fall moom eh, sëriñ Amdi Yacine Fall ak bokk yéen bokkaloon yëpp woote liggéey bi nga xam ne Cheikh Sidi Ma Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu doole ak wéram liggéeyal na ko yàlla liggéeyal ko lislaam muy liggéey bu rëy ca taali tooli Daaru Salaam bokki barga te at mu jot noonu la koy liggéeye su noppee nag rakkam di jëw jëwriñam di sëriñ Hamsatu ñëw ànd ak bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi rawatina waa Kajoor ñi ak mbooleem ku yaakaar Cheikh Abdoul tey jëw jëwriñ ak ku yaakaar sëñ Touba dem ci liggéey ba ngir bàddale ko ba mel ne mu war a mel. ñu woote woon ko ajjuma départ euh, le 10 euh, décembre tey jii ñu ngi ci ajjuma ji nekk fii ci Maqarul Azna ci wetu kër sëriñ Hamsatu ginnaaw bu nu jullee saan ba pare sëriñ bi nekk ci waajtaayu nag jóguuti tool ya e, ginnaaw boo xamante ne bii ku ne gis na image bi sëriñ Abdoulaye Karam ànd ak waa kàbbu gay gépp ak waa Sowu jant di leen romb noonu jëm da tool yi Darou Salaam Boki Barga cheikh yi kër Cheikh ñoom ñëpp ña nga àndandoo jëm Darou Salaam Boki Barga sëriñ Amsatou taxaw nii daal di wax na nag liggéey kuy liggéey ci yoon wi sam xel day dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ndax ñaq ak ñuq ak ak ak ak ak ñukk Cheikh Rafa ko daan def mu ne kon kun jox ab liggéey rek melokaanu Cheikh Ibra nga war a mel wuti tool ya moo tax tey jii gis ngeen ko yaakaar naa ne eh, la mbaxana mañ ko xamee woon dindi na ko sol laa fam Baay takk der gi kon ñi ngi àndandoo nag eh, wuti da tool yi Daaru Salaam bokki barga Serigne Sultan Diaw àndandoo ak eh, kilifa yëpp nag ñu fas yéenee wuti tool yi ca bala ñu faa joge rek danoo jal gerte ga jal ngooj ma tàllal suñu loxo sëriñ bi mu ñaanal ñu ñu del siwaat nag wutiwaat déwén lii mooy liggéeyub sëriñ Tuubaa sañ-sañ balaa am sànja am ak nattu ak tumuranke atte it ba fattu yaakaar naa ne toog rek di mbel-mbel yi du maye ngërëmul yàlla xaw a dee takk sag laxasaay bay bëgg a dee dee wet mooy tax a am ngërëmul yàlla kon yàlla nañ ko ci yàlla defal ci daraje Cheikh Abdoul Ahad kon ñu àndandoo ak sunu caméraman yi fas yéene wuti Daaru Salaam mbokki barga. ادفع بالتي هي أحسن السيئة عن ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من شر سيئتنا وصل بك بين السلام عليكم